waaye métti na lépp rek di waawaat bu baax le président de la république mm-hmm. lii ñu lay wan xamal ne sa askan moment yi ñu la ñuy dund mm-hmm. ñëpp a ngi euh, na waat daal à travers Sénégal boobu 221 rek saa ànd ak yéen ci lépp li nga xamante ne rek teer bi gis nga aussi bataille teer liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa ngi ko doon defal sénégalais sénégalais ba ñu meree gis nga lépp yàqu na lépp yàqu ñu ngi lay ñaan la ñu doon wax rek kenn du la forcé dañu lay neexal moment yi ñun ñun ñun ñoo lay neexal amul problème ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu <laughs> nga dimbali suñu Sénégal jii ñu mën a am jàmm ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu Sénégal gii ndaw ñu delluwaat seen kër suñu yaay yi sonn nañ sonn nañ trop trop trop waaye aussi ñu ngi gis taxawaay bu am solo bi nga xamante ne actuellement euh, porteur de voix ñu ngi koy am ci réew di wax c'est normal loolu la sénégalais di bëgg ci yéen di la sénégalais di xaar ci yéen ngeen wax parce que lu fi waaye réew mii ndaw ñoo la ko def lu fi waaye doon tey ci réew mi sénégalais ñoo la ko kon nañ leen yërëm pour delloo wax baax a baax a baax ci sénégalais xam ne gaañ-gaañ jéem a am quelques réactions rek ci nga xamante ne aussi ñoo di euh, sénégalais yi ñuy waxtaan xamante ni moo di euh, diwaanu Parcelles Assainies ñu ngi leen di wan li nga xamante aussi moo di dégâts yi nga xamante ne moo fi am euh, ginnaaw manifestation yi waaye ba tey ñu am ak suñu frère boo xamante ne bëgg nañu waxtaan ak moom mu joxe xalaatam ci yile euh, yi nga xamante ne jamono ji moom la Sénégalais bi mu am ci ngi lay nuyu bu baax a baax rek di la bàyyi Sénégalais. waaw ñu ngi leen fay bu baax a baax. Ah, ah. di leen fay nuyoo. Mm-hmm. waa Sénégal de léegi métti na lool. Mhm. rawatina ndaw yi. loolu kay. Mhm. jamono bi métti na lool. Mhm. xeex bi métti na lool te xeex moom day day tar day tar de réew. jàmm daal moom la ñuy ñaan. bu fekkee président mën nañoo moom ñoom mën nañoo dem bii ci suñu kàddu gu ndaw gi. ñun jaam yu xeex bi ñu ngi koy ñaan mu baalal ñu mu baaxal ñu rek. ñu te diir diir ñu suñu kaaraange réew. ndax nit amul lu dul dund nit bu liggéey bu dund ñun suñu alal yi yàqu na alal réew mi yëpp mu bëri bëri yàqu na mhm. dëgg yàlla lu ko yàq mooy lii rek mhm. bàyyi ñan laa daan dégg mu ne xay dee baaxul yéen mhm. yàlla musal si xay xayu buur baaxul xayu baadalo baaxul xayu jigéen it baaxul yéen yàlla musal si xay léegi suñu xëy yàqu nañ suñu suñu gont yàqu amul fu ñu jëm fu man man man si xam nga suñu taaw yi yàqu nañ ko taal lépp di ñëw dina ko gisandoon ñun nag jàmm rek la ñuy ñaan jàmm rek ñu ngi koy ñaan nag suñ loxo bu ndaw bi ba mu yegg si président mu def ni mu baal ñu baalal ñu baal ne ko baal rek te la na ko baal te yàlla tax rek ñu ngi ko koo ñaan njëkk nag di ko ñaan si teggiin comme ni ko maam Daba daan ko ñaanee ñu ko ñaan si teggiin ñu ko ñaan si njëkk a tiranga bi mu waxoon sa pare boobu noonu ñu ko koo ñaan mu baal yàq-yàq yi métti na. métti kañ la ñuy a suñu alalu yëpp. kañ lañ ko jotaat euh, bu ñu xoolee c'est-à-dire ci moment yi nga xamante ni moom moo am fii nit ñi. lu ñu lekk sax pour ñu am jënd ko côté bii. la c'est-à-dire ba pour ñu dund sax dañ ciy demee a banlieue bi ah. la. parce que lépp yàqu na. lool lool bëri na fan yii yëpp amul ñu togga mhm. ndax amul ñu liggéey taqale la ñuy def soo kii la ñu lekk ndax xam nga loolu métti na mhm. te yor ay soxna yor njaboot war a dund mhm. amoo looy lekk lu may soow ndax mën soow loolu dund dootu dund góor du waaw te yaa ngi bàyyi njaboot gi ci ci kër yi euh, boo xëyee yaa ngi dikk fii loolu taaba taaba ñun sàcc ñu te nañu njaboot lañ yoon di liggéey rek yàlla tax moo taxoon ñu ñëw fii Sana Sonatel bi indi yàq nañ suñu taabu yi lakk nañ suñu bagage daanaka ñu si rat sax moo gën a métti ndax benn bakkan kenn mënu ko waxuma alal alal nit mën ko koo am waaye bakkan kon nit ñu formé ci ko suñu borom rek moo ko mën a xam fu mu ko jëlee moom rek moo ko mën a delloo si ndax bakkan ku deemoon des ku deemoon dootoo ñëwaat waaye ñi fi des rek dañu ñaan yàlla daal ñu fi gouvernement bi ñu waxtaan ñu gouverneur gouverneur yi gisaa yëpp waxtaan suñu waxtaan yi juboo wax dëgg man de moom a gën a jàmm daal moom laay sàkku si réew mi moom laa koy sàkku si président bi ñun nag suñu loxo dafa ndaw suñu waxi xam naa jëmut kenn waaye ñu ngi koy mas ñu ngi mas wu ñu génnaa dina nag yàlla yërëm leen te ñi fi bàyyi leen ñu yàlla man may ñu jàmm ñun ñëpp may ko réew mi may ko doomi réew mi may ñu xëy nag ndax nit bu liggéey du lekk de liggéey mooy mooy dimbale waaw ñu ngi ne xoolal suñ taawul xam ne damay taxale taawul bi mm-hmm. taawul yëpp taal nañ leen mm-hmm. yëpp mm-hmm. na saa yi ñu ñaari téléphone kese lañ kese nii. ak ay quelques minutes ñun li si lañ laa mhm. si jënd dugub bi du loolu waa dëkk ba. Mhm. ñun waa dëkk ba la. Mhm. dëkkuñ Dakar duñ koy tawoon sawoon sawoon tëj leen. lii rek lañ jàkkaar waaw liggéey xëy liggéey am lépp yóbbu dépense kër gi waaw tolluñ yàq tolluñ def dara. président lan nga wax ci lii. président waaw ah. garaaw mu yoromal affaire yi rek. waaw. comme moom la yàlla teg si bopp réew mi. moom la yàlla teg si bopp réew mi moo jiite population bi jiite armée bi jiite ñëpp moom moo bu bàyyee lépp mu sedd si suuf léppam jàmm mais mais mais sénégalais yu bëri dañuy dute wu est-ce président dina bàyyi parce que situation bu tollee fii ñu xëy tey di dégg ay arrestation ku ci mel ni euh, Cheikh Bara Ndiaye jàpp nañ ko yóbbu ko ndax du gën a euh, motiver sénégalais ñu wàcc si terrain bi tey ah Sénégal yi de wax dëgg buñ xoolee si li nga xamante ni génn na fi àdduna benn bakkan bu rot rek maanaam jarul dara. mu mën a ay bakkani bakkan bakkan bakkan di doon bakk. waaw loolu war naa tax population bi buñ war buñ war a continuer bakkan di continuer di rot dañ bàyyi. Hmm. Macky Sall bu fekkee dafa dëgëral dëgëral dëgëral dëgëral. maam ni ñu koy ñaanee rek mu bàyyi rek mu yolomal rek. Hmm. lépp ci ñaan la tegu rek. Hmm. waaw comme moom moo jiite ndaw ñëpp. moo jiite ndaw moo jiite mag moom la yàlla teg si bopp réew mi. moom mooy baale. dañuy am jàmm rek. ñu mhm. ñaan ci yàlla daal yàlla def jàmm rek. yàlla def jàmm jërëjëf moom am si borom. macha allah parce que lii moom ñëpp la laafaale. Mhm. ñëpp ñëpp ñëpp la laafaale. waa dëkk ba nga xam ne Diagne gis nga ginnaaw ah, suñu mbokk sénégalais yooyu nga xamante ne jot nañu am lu ñu partagé ak ñoom. Mhm. Euh, ñu ngi ci ba tey ci parcelle waaye euh, sonatelu orange bi moo nekk nii gis nga moom it bokk na ci bërëb yi nga xamante ni ah, ndaw ñi saccagé nañ ko yàqu ko euh, gis nga fi nekk nii boo xoolee fii ci orange bi nii tey nii mu mel nii ah doy na waar. doy na waar doy na waar sénégalais am nañ lu leen métti. Mhm, am am nañ lu leen naqari. sénégalais mer nañ ci ki nga xamante ni mooy leen jiite muy le président de la république gis nga nag lu mel nii hmm. njiit boo demee ba ñi nga jiite wala ñi nga àndal tey kaa xool oto baa ngi ni ci biir Sonatel bi dañ kaa mujjee saccagé yàq ko daal hmm. ndaw ji dañ koo taal gis nga boo jiitee nag dem ba sa réew toll fii da hmm. war a wàcc waxtaan ak sa njaboot da nga war a wàcc waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo la campagne al votel la fal la ndax tey euh, lu waay doon ci réew mi askan wi la kon nañu dimbaliwaat askan bi moment yi sonn nañ euh, xiif nañ jaaxle nañ xamatuñu fan la ñu war a jëm gis nga orange bee nekk nii ba tey euh, lépp euh, manifestant yi taal nañ ko yàq nañ ko ñaata ndaw ñoo doon liggéey fii. bëri na te ñoom ñëpp tey dañuy xëy toog seen kër. ñaata famille lañ doon dundal. ñoom ñëpp. yàq ñoom ñëpp ay sénégalais métti na na waaye aussi ba tey rek di ànd ak Sénégal Buzz 221 saa su ne. Mhm. ci di leen wan rek lépp loo xamante ne rek war nañ ko wan askanu Sénégal ñu partagé si ak ñoom gis nga euh, diwaanu orange bu ba tey mu ngi nii gis nga ni mu mokkee mokk na rumb travaux yi fu nekk nii. ni du oto du lenn loo xamante ne tey daw ñenn sànq damaa ut kalandoo bi may yéeg bi may ñëw. Mhm. waa ji xam lu ma wax. Ah. wallaahi. essence sax amul waaye li ma dajee si ab essence nii moom laay génnee pour daw ci télé bi am lu ma dépensé daf dafa daw daf ma kaa wax sama yaram dafa daw pap wallaahi gis nga bi ma koy jox paas maa ngi koy yëkkati woon cinq cent jox ko waaye damay wàcc rek ne ko baal ma rek jëlaaleel wéccet ma ne ko dig na réew mu ne ba mu des suñu réew déedéet ñun xamuñu loolu suñu réew El Hadj Kébé da ngay gis koo xamante ne nii uh-huh. day xëy ba noppi uh-huh. dem ba ba yegg fa mu jëm. falal orange bi lijjanti daal di yónni. daal di yónnee këram. pour dépense pour dépense. kon lii nag arrangé wuñu. métti na président ñu ngi lay ñaan njëkk. ñu ngi koy ñaan rek. ñu ngi lay ñaan njëkk laaj ñu dugg ci biir. Ah, di jege biir gi tuuti. Ah, xoolal fii wóorul sax da a dugg sax mu daanu sax. doy na waar waaye nañ taxawee nii rek. métier bee ko laaj. wala ko métier bee ko laaj te Sénégal Buzz 221 lépp la lay jox. wallaay dëgg la moom la moom macha allah tax rek lépp loo xamante ne war nañ leen ko wan mu xool leen ko gis nañ ni voiture yi plafond yi lépp tàq na ba jàpp lépp doy na waar lépp jeunes yi lépp lañ yàq amul loo xamante ne tey fu mu nekk nii ah. na yàlla